de Fann Point Amitié est située sur la côte sud-ouest de la presqu'île du Cap-Vert. Elle s'étend de Padan. Elle s'étend de Mermoz Sacré-Cœur au nord à Gueule Tapée Fass Colobane au sud. Elle ne s'étend pas dans Mermoz. On est dans Mermoz ici. dañu déggul français. dama ne dañuy dégg français su neexee. la preuve ils ont délimité les communes à l'image du terrain parce qu'ils ont des intérêts sur le terrain. et la preuve c'est qu'ils sont ici pour m'arrêter. Mais les policiers qui savent qu'ils sont ici, là, savent très bien que je ne, je, je ne prêterai pas le flanc. Le flanc, c'est que les gens pensent que je vais sur le terrain. Ça, c'est le combat du peuple sénégalais. Et ce combat, il aura lieu. Il aura lieu parce que ce qui se passe ici est totalement inadmissible. Et je reviens à ce que j'ai dit. Je salue au passage la présence du député Cheikh Omar Sy. mi ngi nii maa ngi lay nuyu di la ziar honorable moom tamit ñu ngi koy ziar parce que il porte le combat pour la sauvegarde du littoral. Donc, je reviens à ce que j'ai dit. Le préfet de Dakar sait très bien que ce n'est pas à lui de délimiter des communes. Il sait très bien que pour délimiter des communes, il faut envoyer des écrits. L'administration, c'est des écrits. On a fait une visite de terrain hier. Il devait rendre compte au ministre de l'Intérieur. Et ensuite, on devait tous nous informer par écrit. Ce matin, on reprend le travail. C'est comme la construction du siège de la paire la nuit. Il n'y a que les voleurs en grande partie et qui se cachent. sans attendre une quelconque notification. Mais ils le font parce qu'ils savent qu'ils n'ont bàyyi ba jarul. donc man commune Kawar la. expliqué la man commune Kawar la. On reste dans la commune, on reste dans la commune. Yéen a ko gisandoo noonu. boo ci say ñëw nag mais li ngeen war a lu leer na ci sama biir mairie laa nekk def leen lu ngeen war a def mais bàyyi leen ma ma def li mu war a def vous voyez Donc ce terrain-là, ils ont dit que cette clôture doit aller rejoindre d'autres clôtures. Donc en fait, pour sauver le projet, le projet se trouve là-bas. Vous avez vu Parce que c'est un tiré lacrymogène. C'est pourquoi on est revenu comme ça. Donc, il faut pas traverser les bons plans. Donc, ils ont mis ça là. Maintenant, je demande à qui appartient cette mm -hmm. Je sais ça appartient à qui à a pris le bail, contrat de location, et qui l'a transformé en titre foncier Pour prendre ça. Ça appartient à qui Non, c'est Mais c'est l'État, c'est eux dans eux, ils C'est un conflit en bas et dans le en Maintenant, je dis que tout. Regardez, oui, effectivement, maintenant, est-ce que c'est que je dis Est-ce que c'est avéré ou pas Est-ce qu'on a pris la place ou on n'a pas pris la place Lui, c'est ce que je dis ah, oui. Vraiment. Maintenant, regardez, ce terrain-là aussi en fait partie. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à là-bas, là, tout ça, c'est un autre terrain. Donc, ce terrain-là, ça, il n'y aura pas de permis de construire. Celui-là, même qui trois semaines à me dire non, je ne suis pas pris la place. Je n'ai pas encore la place.

Vous ne pouvez pas faire allusion. Aujourd'hui, regardez cette clôture. Regardez, elle commence où Regardez, elle vient jusqu'à On dit que. waaye li ñu mun wax mooy combat bi Barthélémy Dias di wax bu yóbboo ñu xam ne commencé na bu yóbboo ñu jàpp ne bés ni ki tey combat bi commencé na. waaw combat bi. la Et ça, c'est la commune de Mermoz Sacré-Cœur. bul dugg bul dugg bul dugg baale nga ko expliquer. Et c'est la même torture. e je dis que je ne suis pas d'accord. dama ne dama bëgg Sénégalais yi déglu ma y compris policiers yi fi ñëw ay Sénégalais dugg fan point imam bu leen dugg fan point dama ne un décret de 96 je lui fixe un décret de je lui oppose un décret de

déclassifier déclasser domaine public naturel lii nag lu muy wane mooy il y a un conflit entre intérêt général ak intérêt individuel

Le régime socialiste, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils sont partis. Le régime libéral est arrivé. Ils ont aussi mis une couche. Aujourd'hui, le régime de Macky Sall arrive. Mais leurs amis sont installés, c'est bien. Mais tout de même, mais laissez la plage. Laissez plage. Ça, c'est important et on insiste là-dessus. Donc, moi, j'invite encore une fois de plus tous les Sénégalais en général, les de dignité. C'est important. C'est une question de dignité. à se mobiliser. Parce que chaque fois que les Sénégalais son mobilisés, le régime a Il faut que les Sénégalais se mobilisent. lii ñoo ko bokk te fii woote woon nañ fii aar lañu bokk tefes bi ñoo ko bokk kenn moomul tefes bi donc foog ñu ñi manko doon benn ñoo wane seen naqar parce que lii du mbiru gouverneur du mbiru préfet kuy dem ba di wax ay cinq mille mètres carrés ay cinq milliards dama ne mbiru Macky Sall moom moom boppam Macky Sall moom la ñuy waxal c'est à lui de sonner la fin de la récréation. Parce que cela se fait avec la complicité de son administration et de son gouvernement. Toute personne et toute autorité confondue. Je n'ai pas le temps de m'arrêter sur des personnes ou sur des postes. Parce que je considère aujourd'hui que ces personnes ne sont pas des autorités. Ce sont des autorisés. Une autorité n'accepte pas de valider l'illégalité. Quand aujourd'hui une autorité déconcentrée accepte de cautionner ça, ce n'est pas une autorité, c'est un autorisé. Et moi, je n'ai pas de temps de polémiquer avec, des autorisés. Je suis autorité, je suis élu. Je fais un constat, je à la population de se mobiliser et de demander et d'exiger à ce qu'on préserve le bien public. Et quand on partira tout de suite, vous allez constater le bien public. Et vous-même, vous verrez que ce que propose le préfet de Dakar en termes de délimitation de communes, c'est fait à l'image du et c'est partisan, c'est clanique et c'est illégal. C'est taillé sur mesure. C'est taillé sur mesure. Voilà. Donc maintenant. ok ok ok. Merci. nous étions au, Go, au Gorée Mémorial avec tous les policiers qui nous encadraient. Nous n'avions pas déposé de lettre d'information. Euh, on Ça veut dire qu'en président Macky Sall couvre-feu bi état d'urgence bi comme ni ko Barthélémy Dias waxee c'est pour lui. l'essentiel mooy a ah, ñoo xam ne il ne constitue aucun danger mun nañ manifester waaye aar li lank Barthélémy Dias FRAPP ak ñoom seen amuñu sañ-sañ manifester dama ne pesum karam borom moo koy fajal boppam ce couvre-feu là cet état d'urgence la bi nga xam ne dara desutu ci lu dul interdiction de manifester na va pas nous empêcher de manifester parce que soit on confine tout on confine les citoyens mais un confine également l'accaparement des terres buñ ko nangoo ñu nangoo confinement waaye bu fekkee au moment où ils nous disent interdiction de manifester ils agressent le peuple sénégalais ils agressent le littoral ils agressent le foncier loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moo tax ñu am sañ-sañ wax ne ñoo lànk ñoo bañ duñ ko nangu jërë ngeen jëf. honorable nga fekk si ndaje bi yan kàttu waaw demain incha allah suba. maître Dame Bassiré va déposer une plainte à la section de recherche. Et Dambesere Batili va animer un point de presse où il vous donnera les éléments, les tenants, les aboutissants visés par cette plainte. Et cette plainte sera portée aussi avec toute la société civile. Et je pense qu'il y avait déjà un travail qui avait été commencé avec l'honorable député Cheikh Omar Sy. Et nous allons nous joindre aussi à ce travail. Et nous voulons, entre autres, un sursis à exécution attendant que le droit soit dit. C'est ça la vérité. S'il ça sera de la responsabilité de m le ministre de l'Intérieur. Parce qu'il sait très bien qu'un contentieux porté par des citoyens, et pas n'importe lesquels, M. Si a été député à l'Assemblée nationale du Sénégal, un contentieux porté par une commune, une commune, c'est tout de même un démembrement de l'État consacré par une loi. Si aujourd'hui le ministre de l'Intérieur considère que il n'a pas à prendre des mesures à sursoir à cette exécution, il sera de n'importe quel trouble à l'ordre public. Je vous remercie. que vous rajoutez sur ce point? Euh, euh, li ñu ci mën a dolli rek mooy kii c'est un viol c'est un viol du littoral. on a dénoncé parce que aujourd'hui ki fi nekk tey li ñu ci a ñaaw mooy Djibril la nekkoon li muy def nii ak accident moo yem fekk suuf soo xam ne ñëpp ko moom di ko agressé bu ko moomal boppam mais on sait aussi que pertinemment il n'est pas derrière moom kese nekkul ci suuf si parce que li ngeen gis nii bu nekkoon yoon la policiers yi tey duñ fi ñëw. bu nekkoon yoon kese la policiers yi kese duñ fi ñëw kon lu fan la doole boobu lan la ko amee ba ñu war ko mu permettre moom mu mobiliser policiers yëpp ñu mën a aar lii. ça veut dire qu'ils sont ils sont conscients qu'ils sont euh, en de commettre un meurtre sur littoral. parce que George Floyd ni ñu ko tegee kuddu ci baat bi. Mhm. noonu la tegee kudd suñu baat bi ci littoral bi pour rey ñu jour après jour. littoral bi bañ koy tabax ba léegi ñu ngi gën yokk ci feebar. ñu ngi gën yokk ci cancer étudiants dañu war a génn nanguwaat kër yi. parce que espace ba espace université c'était pour les étudiants ñuy dem di bàyyi ay école loisir Radisson euh, gis nañu gis nañu gis nañu teeru bi lu mu fa def mais il faut arrêter quand même le président de la république c'est lui qui signe il n'a qu'à arrêter de signer parce que moom moo taxawoon ne kii 2017 la ko fi amee mais Djibril Diallo lan la gën policier ba ne toog fële mu am fi fii périmètre lu tax ñoom duñ leen ko jox ku nekk cent cinquante cent cinquante a liggéey daf leen gën a def sacrifice daf leen gën a réew mi daf leen gën a gën lu tax ñoom policier jox ñu leen ko ñoom ñu yokk kenn koo xam ne yoon kenn xamul lan la defal Sénégal mu war a mën a jël suñu littoral war a mën a interdire léegi ñun ñuy wàcc ci kii bi il est li ñuy wax et je me joins et je me réjouis avec Guy Marius Sagna avec euh, le maire Barthélémy Dias toujours comme euh, porté ces combala là on va s'attaquer à sa on va invité le peuple sénégalais ñi dëkk Grand Dakar ñi dëkk Mermoz ñi dëkk Amitié ñi dëkk dans les environnements dans les environs ñu wàcc ci plage bi nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp parce que bu ñu wàccul ci plage bi nag lenn du fi des ñu fi dëkk ñan la ay marabu ay ay ministre ay magistrat ay juge c'est seul ce conglomérat là benn mafia bu ñu organiser ñu séddoo suuf si seen biir parce que bu leen lewoon bu leen lewoon depuis yi bañ koy wax ñu dem porter plainte contre ñun bu leen lewoon depuis yi bañ koy wax bu ñu leen am nañ seen titre foncier ñu génn ci médias yi weddi ñu mais ñàkk weddi boobu nag xam nañu ne li ñu def ni c'est tort la te dara gënul ñaaw nga yeew suba teel ñu leen ne cim da nga ko cim na nga ko sàcc pour pour romb ci littoral bi di rëbb ñu fi dëkk parce que xam ne ñi fi ñu dëkk ñoom moomuñu ko moomuñu ko tey moomuñu ko ëllëg le domaine public maritime appartient aux Sénégalais keroog certain nee na ne fii c'est à cinq mètres de la mer et donc certain ci boppam nangu na que c'est une violation parce que c'est à cent mètres de la mer c'est ça même ils sont même à cent mètres de la ñoom ne ne ils sont à cinq mètres de la mer ils ont admis dans leur document que sont en pleine de la loi ils ont léegi ñun ñi nga xam ne ñun ñoo am suñu yelloo bien public ñun la ñuy yonnee policiers yi ñi nga xam ne tey ñu ngi sàcc suñu suuf ñoom lañu ñuy protéger et dafa war a dagg loolu dafa war a dagg parce que suuf si moo gën a garaaw pétrole ak bi ñuy wax suuf si moo gën a gaaw pétrole ak gaz bi li ñu wax li ñuy lëmbee ci dëkk bi te wax naa ko sànq sama sama sama émission nee naa leen direction impôt et domaine dañ ko war a tas parce que lépp lu yàq ci dëkk bi bokk nañ ci ñoom ñoo fi nekk di di saax saaxee ngay gis tey ñu nommé ko muy may ay cent cinquante millions suba benn agent bu daw ñu gis muy dawal ay hmm. loo xam ne nit ñi ñoo ñàkk seen i suufu bopp. a tas vraiment et ce combat là comme il a dit on va l'a a même pas 48 heures a presque 6000 signataires xam nga loo lancé ah, dafa dafa na la ñi sénégalais lii métti na leen objectif bi tey mooy porter plainte on va porter plainte contre l'état du Sénégal et on est en train de préparer les documents et on va porter plainte contre la direction des impôts et domaines parce que yi ñuy def nii c'est dans l'illégalité li li Djibril Diallo sous-préfet wax démb amul fenn fu ko teg mhm. amul on a jamais vu un sous-préfet qui sort pour défendre un citoyen seulement et amener la police musul am alors que les les Sénégalais te disent que ça c'est du vol ñëpp xam ne que c'est du vol ngay bëgg certificat nii du ci vol alors que la loi est sa c'est inadmissible il faut qu'on arrête à un dans ce pays te xam ne ne suba yàlla am na dañuy dañuy gis suñu borom donc c'est pour la presse qui vient d'arriver parce que tu n'es pas encore là sur place ouais. la alors je te montre ce que dit le préfet on commence ma chronique où c'est terminé on ça c'est vraiment ça. mooy li partage commune Mermoz sacré ak Point E. non Matalawa la côté bi ngeen gis. Matalawa je vais te le montrer ailleurs. la clôture là. ça embrasse tout le terrain. Matalawa un peu plus pour la clôture ici. je Parce que, en fait, ce qui, ce qui nous intéresse, c'est le 5 mètres carrés, c'est le projet là. Oui. Comment vas-tu Ça va bien. Ministre Merlo leeral ci biir wala ñu ngi koy wala ñuy précipité. wala am nga lu sàcc bu sàcc sàcc rek moo mën liggéey liggéey bu gaaw. sàcc mooy liggéey liggéey bu a ngi gis noonu ci image donc ñu ngi ci corniche ouest bi. voilà explication yi di joxe ci situation bi. géej bi mi ngi nii ñoom jël nañ géej gis ngeen géej bi. géej bi dara desul. maintenant ñoom nee nañu que maintenant man sama commune. mi ngi commencé ci clôture bu bleu donc terrain bi mi ngi mi ngi mer moo saxee kër. alors Bart naka lañ la jéggee ñëw fii jéggi la ñëw fii nu mu demee comme talent ci li ñuy dóor fële. ils ont décidé que maintenant bii nii ak bii nii c'est de ma commune parce que ça que j'ai que maintenant Baba c'est la fii mais képp sax yow di nga yàlla dina tuba lépp loo fi lekk fii bu ngeen gisee ñu ngi kuule ñu ngi def lu gaaw ñu ngi def lu gaaw ngeen fi ñëwee sax ba dem naa nga fi guddi fekk parce que fu mu nekk nii da nga arrêté woon travaux yi la lu mu demee nii. dama ko arrêté woon te sàcc euh, bu ànd ak nduur. est-ce bu mhm. mooy am police mooy am lépp di koy gunge di ko jàppale. donc ñoom nee nañu maintenant ñoom nee nañu suma mi ngi commencé ci clôture bu bleu bi donc nee nañu terrain bii nii terrain bii nii terrain bi bi sama commune mais man nee naa clôture bi ils ont fait un permis de construire pour toute la clôture et ils disent ils disent que ma transformé 5000 mètres carrés les 4000 mètres carrés ma transformé en fan point et les 1000 mètres carrés en chemin ça ce n'est pas du vol c'est quoi c'est le pain d'incohérence non c'est du de ce pays loolu mooy wax ci la ci ni ñu baaree xoolal géej gi géej gi fii dañ doon ñëw xoolal géej gi kan moo mën a dem ci géej gi léegi là actuellement il su ngeen bëggee ñu dem ba côté bee ngeen xool même pas visiter non terrain bi dafa am borom wante bii moom yàq na parce que lan ma te waaye te gars yi ne nañ ko mi ñu mi ngi mer moo sayet yooyu parce que gars yi ne nañu à partir de clôture bu fleuve bi comme ñoom lii maintenant bii mi ngi sama bi tamit mi ngi sama commune bii nee nañu poto bi poto moom mooy frontière bi dama ne ban ci ban dëkk un pays normal en pleine ville on vous dit que c'est un poto qui ne sait yi alors seen mbokk yi Guinness des frontières internationales amul kenn génn benn koppar jënd benn benn mètre carré amul su leen neexee ñu wàcce ba ci suuf ngeen xool yenn kër yi di ngeen xam ne ni kër yooyu ak kër yu nekk Miami benn la te kër yooyu su ngeen ko gestoo di ngeen xam ni kanamu kër Miami moo tane parce que bàyyi nañu espace fu ñuy ni jàll wax nga dëgg sax Miami moo tane Miami doo am amoo ci kaw plage kenn domaine public maritime bàyyi leen di boo yoree régime boo xamante ni mooy loolu ñu noonu yéen a ko gisandoo l'essentiel li mu war a xeex na ko li mu war a wax wax na ko li mu war a yuuxu yuuxu na ko tey sous-préfet daf li ko woon bu ma la gis ñu ngi seen conseiller yàq laax def ko gis effet conseil la daf li yow bu ma la gis ci place bu ma la ko gisee naa ko digaale yow tey moom ñëw na woon dëkkal boppam moom sous-préfet ñu de lu jox ñëw face personne n'a seul mètre carré comment ça loolu tous attributaires par voie de CCOD vous êtes ministre Vous êtes au magistrat. Copain, copine ou, ou maîtresse de ministre, peut-être, ça peut donner quelque chose. Vous êtes ami de la première dame ou du chef de l'État, vous pouvez prétendre. Venez voir, venez voir la plage. Venez voir la plage. Regardez, actuellement, il ne fait même pas 18 heures. Regardez les jeunes en bas. Regardez. Ce qui va se passer, je vais vous laisser ce qui va se passer.

C'est aussi simple que ça. Dites-moi où se trouve la plage qui était presque encore à presque 150 mètres à l'intérieur. Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Ils ont violé le code des mines. Ils ont violé le code de l'environnement. Ils ont violé le code de l'urbanisme et ils ont violé le code général des collectivités locales. Ils ont violé quatre lois. Et là, vous viendrez vous verrez. ñeent côté mine côté l' environnement côté l'urbanisme ak côté la garde côté. léegi gisee ni bii coole TV yaa ngi ko am à show fi toll nii tamit moo sacré que ñu ko raadu ñu ko baa la dina woon da ngeen ñëw da ngeen ko gisee ñu ngi ñu instant yi ñu ci mbir moo. kenn kër gi bakk na ngeen di gis kër yëpp la wax nag kër yëpp amul kenn ku fi jënd kër. suuf amul képp fi gën a dërëm jënd ci suuf amul ñoom ñëpp dañ leen may suuf li ñuy woowee attribution attribution bu ñuy woowee CCOD mooy commission de contrôle opération domaniale ñoom seen biir la ñoom neen seen biir ñoo saax saaxee bi yëpp partie du dossier identifié OK Allez savoir à qui appartient a maisons. Tiens, comment Ces deux maisons appartiennent à la même personne. maanaam monsieur le maire nga ne la ñaari kër yi maanaam ki ko moom benn nit ki la. gëstu dem leen ngeen gëstu kanamam kër yi. ñaari kër yi way kër yi taxawoo yi xam nga nag ponkal laa wax mooy dem ba moom kër ba jël lu mët kër def ko parti voici les fonctionnaires du Sénégal dama ne voici les fonctionnaires du Sénégal da ngay dem ba tabax kër kër gi doyul nga jël lu toll ni kër nga def ko parti que da fi nga xam ne dañ leen fa dénk signature bu askanu Sénégal nga koy jël di ko tontonge di ko fooye ces fonctionnaires véreux ils se connaissent qu'ils soient fonctionnaires de la direction générale des impôts et domaines qu'ils soient autorités déconcentrées qu'ils soient membres du gouvernement ils se connaissent tous est-ce que vous pensez qu'une personne normale au Sénégal peut construire une maison pieds dans l'eau sur des milliers de mètres carrés et se permettre d'avoir autant de milliers de mètres carrés en en en, en parking et en titre foncier sans avoir décaissé je vous dis un franc fonds d'attribution. C'est la même bande de copains et de coquins. On s'est assez tu, ça suffit. C'est au Sénégalais de se lever. su ñu amee jom te am nañ jom. Ah su ñu amee fulla te am nañ fulla. su ñu amee fayda te am nañ fayda. lu ci des nag maa ngi biiraat wax ci dama ne. pesum kanam borom ma koy fajal boppam. waaw ñun Macky Sall buñ koy fal dañ ko fal ngir yaakaar. faluñu ko bu mu jël suñu alal di ko tongtonge. merci merci kon gars ñi ko déggandoo moom